Sunugal 24 point net bismillah dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci Sunugal 24 léegi léegi li gën a fës. bokk na ci li gën a fës euh, ci xibaar yi maître Abdoulaye Wade daqul euh, wàcc ci tali bi ngir xeex euh, li fi waa APR bëgg teg ne njiitu réew mi moo war a tabb ki war a toog ci bopp moomeelu ndakaaru waxi tamit ci lu ñeel transporteur gambien yi ñoom danañu gantal yoon yi ba seeni ñooñ yu nekk Sénégal duna mën a jàll ci seeni waax waxi tamit ci faat biñ fi faatoon Mohamed Cissé kenn ci ki nga xam ne ñu ngi koy tuumaal mbir mi moom ay mbiram euh, gën naa dëgër daan wax tamit euh, ci mbirum euh, Mame Makhtar Gueye ak doomam bi fi réeroon daal di feeñ waxi tamit ci lu ñeel Nafi Ngom Keïta mi nga xam ne jot na citation directe bu Cheikh Omar Anne di jëwriñ bi ñu dénk wàllub njàng mu kawe mi ngàpparu benn gone gu jigéen moom moo daal di copain am tubaab daal di koy sàcc lu toll ci fukki million ak euh, juróom-ñaar ci sunuy euh, koppar waxi tamit euh, BBC gannaaw mariage ki fi nekkoon Miss Sénégal moom it dana marié boo moywul benn fan ci weerub mars gannaaw loolu benn emploi maanaam benn liggéeykat ajrut moom moo faat ñoñam daf ko daal di jam paaka mu mujjee ñàkk bakkanam Edmond Baro jamono ji bi euh, moo nekk ci kaw euh, boppu MFDC daan ci dikkaat euh, ci biir xibaar yi ci nu mu gën a yaatoo mbokki neski si ak faram-fàcce gi asalaamaaleykum gannaaw bañ leen euh, nuyoo dal leen ak jàmm ci euh, vingt 24 yaatal ak faram-fàcce xibaar yi euh, dañ koy dooree ak maître Abdoulaye mi nga xam ne nag moom dàqul ba wàcc ci kaw mbedd mi wala sax wàcc fa bakkanam ngir xeex proposition bi nga xam ne ñu nekk ci kaw nguur gi ñu ngi koy sàkku ngir rek njiitu réew mi Macky sàll mën di tabb maire yi ndakaaru kan moo fa war a nekk ak ku fa warta toog maanaam daal dootul amati élection njiitu réew mi Macky Sall dafay xool ku ko neex rek mu daal di koy uh, tabb loolee tax ne maître Abdoulaye wàdd di artu ne lu ni nag dana ko xeex ba fu mu yem dàqul sax uh, ngir uh, bàyyi ci bakkanam ci mbedd yi ñu wax itam ci transporteuru gambien yi nga xam ne ñoom danañu fatt yoon yi ba seeni ñooñ yu Sénégal Sénégal duñu mën a jàll ci seeni waax li nu nag gannaaw artu yi nga xam ne euh, ñu ngi ko doon euh, def ci kilifa yi ngir euh, tere ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni ñooñu yu Sénégal ñu jàll ci seeni waax ñoom nag li nu mel daal dinañ koy dëggal niki tey ji ndax tàmbali nañu ay grève yi nga xam ne nag day tere transporteur yu Sénégal yi ñu wàcc foofee ci seeni yoon li waral euh, lu ni mel nag mooy euh, frontière karang yi nga xam ne euh, jamono ji dafa yàqu boobu lépp secteur ndax transporteur yi ba tax na nag doon na am ay doléance yi nga xam ne ñu ngi ko doon jébbal waaye ba néega ni dara saafaraw si ak it sonal gi ngeen ni sonal ci yoon yi lii lee moo waral rek ñu jëfee ci jamono ji seenub menace yi nga xam ne Euh, doon nañ ko yëkkati ci ay euh, jëmmi jamono ñu wax euh, ci lu ñeel faat bakkan Mohamed Cissé ca Kaolack kenn ñaar ñi nga xam ne nag ñu ngi leen di tuumaal kenn ci ñoom euh, mbiram nag euh, gën naa dëgër ndax euh, fekk nañu benn ci yëreem benn yëreem bi nga xam ne moom la soloon ci bës boobu la nga xam ne ñaawteef ba ca la amoon ay deret moom nag bañ ko laajee deret gi fu mu jógee dafa daal di wax rek ne dafa rayoon benn mala deret boobee moom moo nekk ci mbubb mi waaye nag gannaaw analyse yi nga xam ne def nañ ko ci mbubb moomu ak deret bañ ci fekk daldi di nañuy xam ne deret boobu deretu nit la euh, sañ nañoo sax wax ne deretu Mouhamed euh, Cissé euh, la ñu fekk ca mbub ma ba tax na nag ñoom ñaar ñooñee jébbal nañ leen procureur ba ñu ubbi ab information judiciaire Mame Makhtar Gueye ak doomam bi nga xam ne moom dafa réeroon daal di feeñ ca Yoff suñu sukkandikoo nag ci vice président ONG islamique bi di Jamra Mame Makhtar Gueye moom mu ngi xamle ne gannaaw nag ba police maanaam takkader yi déggee doomam bi di Fatou Bintou Gueye gannaaw ba mu réeree ni ki aljuma feeñ samedi wuteek lool li nga xam ne moom la waa police wax ci benn rajo fii gannaaw bañ leen dégloo moom nag wax na ne doomam euh, mu ñu ngi ko fekk ca benn njaboot euh, bu sant Fall euh, fi ci Yoff lépp nag mu ngi bàyyeekoo ci ab message bi nga xam ne Mati 3 pom moom moo ko envoyé di ko wax ne doomam feeñ na. lii nag moo tax euh, mu daal di bàyyi lépp la nga xam ne moom la doon def euh, delluwaat këram ci noonu rek euh, mu fekk fa doomam benn soxna indi ko moom ak beneen doomam ci la envoyé message commissaire sanqara ñu daal commissaire Sankara moomu sax daal di koy wax mu indi gone gi police ndax ngir ñu mën koo dégg ci noonu rek lañ ko daal di yóbbu commissariat ñu daal di koy dégg waaye nag policiers yi ca bañ koy déglu xamle nañu ne euh, xale bi dafa mel ni rek euh, ku jóge ci ay nelaw wala mel ni rek euh, ku ñu daal di drogué ndax dafa mel ni ku gëmmantu ca bañ koy déglu moom Fatou Bintou Gueye daal di waxaat lépp li nga xam ne jaaroon na ci ca ba ko papaam waajuram bu góor doon laaj kon nag mbir mi mu ngi noonu danañ ko wëyal topp ko xool fan la wànnante di mujjee ki gëtam wax ci mbirub euh, Nafi Ngom Keïta ak fi nekkoon euh, directeur bu kudd di Cheikh Omar Anne nekk jamono ji jëwriñ bu ñu dénk wàllub euh, njàng mu kawe mi moom Nafi Ngom Keïta nekkoon présidente office national bi nga xam ne moom mooy xeex wàllub ger gi ak mbuxum bi ñu dippee ko OFNAC moom Nafi Ngom Keïta nag daal dinay jot këyit bi nga xam ne dafay wane ne Cheikh Omar Anne daf ko daal di yóbbu ci yoon waaye suñu sukkandikoo nag ci kenn ki nga xam ne xelam dafa màcc ci wàllub euh, yoon di Nguuda Mbuub moom mu ngi xamle ne moom mi fi nekkoon euh, présidente nag kenn mënu ko yóbbu euh, ci wàllub yoon suñu sukkandikoo ci article 19 bu code pénal bi ndax nag dafay liggéeyal Sénégal te it bi muy def enquête bi dafa nekkoon ci ci wàllub liggéeyam te it euh, benn juridiction jamono ji mënu koo topp te boo koy yóbbu sax si yoon dafa am fi nga xam ne foofu nga ko war a mën a jaarale laata mbir ma di yegg suñu sukkandikoo nag euh, ci avocat yu fi nekkoon euh, directeur bu kudd ñoom ñooñee nag ñu ngi xamle ne du Nafi du fi ngoom Keïta rek moom moo jot boobule kayit waaye Pape Alé moom it jot na kayit buy wane ne yóbbu nañ ko ci yoon ñu dem ngaparu ak benn gone bu jigéen bi nga xam ne dafa dafa drogué ab euh, copain tubaab daal di sàcc ci moom lu toll ci euh, fukki million ak euh, juróom-ñaar mbir mi nag mu ngi xewee ci guddi juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti fan ci weerub janvier Aminata Sëy gannaaw nag ba mu dëkkeek tubaab bi gannaaw ba tubaab bi ñëwee ay vacances ci guddi googu nag daf ko daal di jox rek Red Bull ngir mu naan ba mu ko naanee nag tëdd di nelaw ci la moom Aminata Sëy daal di sàcc koppar googu mu toll nag ci 17 million ah, daw si jóge foofee ca ngàpparu ñëw fii eh, fekk si copain am di bàyyi doomam dénk ko boobu lépp eh, xaalis eh, ñoom nag moom ak copain am boobu mu daw fekk si fii ci ndakaaru am nañu benn doom bu am ñetti at ñoom ñaar ñépp jamono ji yoon teg na leen loxo ba daal nañ leen defeere wax euh, ci mbirub euh, mariage euh, bébé gannaaw mariage bi nga xam ne nag sëyam bi nga xam ne fas nañ ko keneen ki nga xam ne ñu ngi waaj a fas sëyam benn fan ci weerub mars mooy Ndeye Astou Sall moom mi nag nekkoon fi Miss Sénégal ki nga xam ne moo koy waajal takk turam mu ngi commencé ci WS boobu lépp sëy nag danañ ko takk benn fan ci weerub euh, mars bi ñu jëm kon nag euh, mbir maa mi noonu danañ ko topp yi tamit euh, xool fan lay mujj ñu wax ci liggéeykatu Ajrut bi nga xam ne dafa daal di jàmm ñoñam ba kookee daal di ñàkk bakkanam Bakary Badji lay wuyoo ñu gën ko xamee ci Yoro nekk chauffeur foofee ca Ajrut moom dafa daal di jàmm gardien société ba di Jean Baptiste Senghor mbir mi nag mu ngi xew samedi fukki fan ak euh, juróom ci weeru euh, février bi ci ay 7 euh, heures du matin la daal di mbir ma daal di xewee moom chauffeur ba nag dañ ko yóbbu urgence ca hôpital de la Paix waaye nag gannaaw bañ ko dalalee dafa mujjee ñàkk bakkanam ba nag jamono ji ubbi nañu ab euh, l'enquête euh, ci mbir moomu ñu jeexalee ko ak euh, Edmond Baro mi nga xam ne jamono ji moom moo nekk ca kaw MFDC maanaam moom moo yore lenge yi gannaaw ba ñu faatee ki nga xam ne moom mooy Abou Elinkine Diatta bu mouvement MFDC sunu sukkandikoo nag ci bataaxal yuñ jot moom mi nga xam ne nag moom moo jiite jamono ji MFDC mu ngi wuyoo Edmond Baro moom nag moom mooy boss bi ci jamono jamono ji maanaam lépp li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu mouvement fipp boobu ci MFDC moom moo koy jël dogal yeeg waxtaan ak nguur gi ak lépp lu ñeel nag seen doxalin moom Edmond Baro moom moo ko daal di yor mbokk yi li lañ leen indiloon ci ay xibaar di leen jox dig daje suba incha allah jaajëfal nañ leen bu baax. sunugal 24 point net